maa ngi ci di entraîné durant boobu léegi waaw xëy na nag yeeweeguñ ma moo tax li nga may wax nii ci Papa Sow loolu dama si mënagul ñëw 100 pour cent. waaw parce que na ma xaar Dakar mu ñëw daa am lu may jël rek bu si jotee rek maa ngi ñëw. Hmm. waaw war naa def open press. Dakar laa koy defee. Hmm. nañ ma xaar war naa def signature mardi hmm. na ma xaar. waaw moom dafa yóbbante. mais lu yàggul la jàkkaarloog man lu tax waxuma ko. loo yaakaar mu tax waxu la ko. non loolu yéen laa koy laaj yéen ñi fa nekkoon démb. Mhm. ngeen gis ko mu mel melokaan boo xam ne mosu ko mel. ah. waaw kon loolu yéen laa koy laaj di dañ koo pompe wala dañ ko cuuj baaraam wala. foo yaakaar moo ko war a pompé. ko yow mi fa nekkoon. est que du moo ko pompé dooleem gëm-gëmam wala capacité bi ci bëre moo ko pompe kan moom mu wax waaw. waaw loolu mën naam parce que papa champion la. champion la champion boo xamante ne tey ku dem olympique defa dara def équipe nationale dafa dara yee nekk champion boo xam ne yàgg nga bëre ñëpp xamee la ci bëre kooku kooku ndaanaan la Papa Sow li ma leen yàgg wax rek du ma wax lu si moom lu dul ndaanaan mais man na taxaw xaar ma rek man man maa jot pour man ma wane sama ndaanaan waaw loolu laa am lu may wax waaw di xaar keneen posé ma benn question. jërëjëf yi maa di nuyu tund bi yëpp di wax eh, ñëw bi du coono xéewal la ndax ci mission yi la bokk te nit bu tàbbee dëkk bu mës a dem xam-xam yokkuwaat te am na lu bari lu ñu fi jàngaatee kon loolu xéewal si ñun donte suñu liggéey la maam benn question nag mu jëm ci yow. li mhm. Babacar daane lay fa lay fa lay bëtaatee. Mhm. mooy souvent dañu déggaat ci communication Papa Sow démb mu ne. Siteu mënumaa daan du ci bëre. du ci xeex. du ci lenn loo xam ne rek mën na maa sonal ci Siteu may nelaw mënumaa yee. te buñ bëreewaatee cinquante combats fa ma bëgg a jaar ak moom laa fay jaar ak moom ci lan la ko teg ba mu ñeme la peut-être daa xalaat lan la ba tax loolu laay xalaat daa lay laaj. dafa bëgg a bégloo ay rek laa jàpp Papa bu doon nelaw bu ma ko ñoppatee sa mu yeewu. Hmm? bu doon ne bu ma ñoppati ko. Hmm. mu yeewu. bu yandooree même. xanaa yow li ma la xanaa déggoo ko kuy nelaw nga ne mënoo ko yee man dama koy ñoppati. day yeewu force waaw. bi ñu ko dee Siteu góosam bi dana loolu yéen la jaaxal ñu ne ko Siteu dafa dugg parcelle dóor fa Zoss mu daanu. Mhm. mu ne man ak Zoss bokkunu c'est différent Siteu su ma ko jàppee mu xam ne maa ngi moom bu ma jàppee nag ma bëriloo ko ba bàyyi. Hmm. bu ma jàppee ma bëriloo ko ba mu bàyyi bu xaacee ku ma xeex moom ba mu doyal. nee na bëgg da ngeen xeex 30 minutes. des si moom loolu ci moom lay dépendre waxoon naa ko signature parce que li ma ko wax moo ko yee dama ko ne combat bi noo bëgg mu mer rek ci yow Hmm. dégg nga ma waaw moom dalaa limal ñaar ñaari jël la la limal. waaw 10 la wax unité la. Oh, euh, ah parcelle 10. 26 unités bu ñu jot wàcc ma du ma ko daan ku man. bu ñu jot arrêt bu duma ko daan. dañuy dugg oto maa moom arrêt bu ñu jot wàcc ma du ma ko daan. unité 1 unité ba 24. ba 26 ba 26. waaw arrêt bu ñu jot wàcc ma duma ko daan ko. Ah, ah, waaw ba waaw. moom fu ko teg rek laa ko teg. fu ko teg rek laa ko teg. Papa bi nekk mag jëmm. Ah. def carrière am bay waaj jeexal. mu jaral ko mu teg loolu foofu ne moom fu ma fekk daf may daan. waaw kon man miy xale nan laa war a def. man miy xale nan laa war a def. nee naa la combat bi dama ko bëgg. combat bi dama ko fonk. combat bi dafa ma jaral. dégg ma. papa bu mu def dara na taxaw rek moom. moom na taxaw. Babacar lii du ay de lii bis la. waaw bés la boo fekkee da nga bëgg gis tere la nelaw ñaari fan avant. ah ma waaw nga réservé pour mun a xool bu baax. <laughs> mën na jàpp du ko may dara. fu mu ñëw ma fàttu ko maa ko wax. bu jóg fu mu ñëw ma fàttal ko foofu. bu xeexee. ma fattal ko foofu. fatal ko foofu. kon kay jeex na. fatal rek. moom laa lay wax wax ma beneen question ma wax leneen. nee na combat 30 minutes la lay ah? xamante ne démb moom dafa contact même pas 30 secondes xaw ma 5 minutes mu tëdd jaaxaan. démb yow kooku bu la waxee day bëree 30 minutes di ko gëm. loolu la wax de. ah mais. mais démb ci biir contact dama gis démb. dama gis ñu ko wër parce que dama gis ñoom Modou Lo wër ko ñoom Franc ak ñoom. waaw ñoom Gora Sock. waaw. macha allah mu am ñoo xam ne ay sparring partenaires yu leer la. Mm-hmm. est du ci loolu la teg moom ba yaakaar ne mën ngeen a bëri mm-hmm. yàgg te bu ngeen ko bëree yow yaay bàyyi. xamee nga xamee nga kii. Omar Diouane waaw ma bëggoon naa ñëw si moom léegi. waaw dama lay laaj xamee nga ko. Omar mais. waaw équipe nationale. ñoom ñëpp kii leen mën. ñaari Omar yi wala benn Omar fi ne. ñoom ñaar ak Ibrahima ñoom ñëpp. kii leen mën waaw waxuma la ak keneen ak keneen. papa kon Ah. waaw te moo ko gën a gaaw fopp papa bu bëggee bëre nee dina bëre ba doyal bu fekkee ne xeex la bëgg dina xeex nee naa ko ardo na indaale ko luy bari e lii du lépp de lii bis la bis bu yàgg la ñu wàcceel ko ati yi bëree bëree bëree bëri yàlla di ci def ndog waaw kon ba ñuy ñëwaat jubluwaat si lii hmm. ñoo ngi ñaan yàlla mu yóbbu ñu si ak jàmm hmm. may ñu jàmm waaw waaw salaamaaleykum mbokk yi fi teew yëpp ñu leen di nuyu bu baax kenn ku nekk sa tur ak sa gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi gërëm magu dëkk bi Siteu dañoo dugg dañoo gis démb Papa Sow ñu dégg suñu micro mu ne Siteu bu fekkee ne bëre rek la bëgg bu ma mën naa ko bëre loo ba stade Petit fekk si ko fa la ak moom. bu ñu tëjee barrière yi moom dugg biir stade Petit Mbao bëre ak yow. c'est la deuxième question bi mooy lan moo tax nga jógee Ndakaaru ñëw si say mbokk man loolu laa bëgg nga leeral ko nga xam ne ñoo lay seetaan lan moo tax nga ñëw Ndakaaru jox say biir mbokk toog say biiri mbokk toog say biiri maam ak say biiri papa lu tax loolu te daawuñu ko gis. loolu li ma ciy wax mooy mooy nit amul lu dul mbooxam waaw man fii bi ma nekkee xale laa fi jóge dem jàngi métier toog naa dix ans yoo xamante ne jàng naa ko métier foofu ñëwuma fii ba yàlla indiwaat ma fii mais fur et ma yàlla dugal ma si làmb may bëre may jàppale may bëre sama nijaay bi Abdourahmane kii moo ma jàngal bëre moo ma yor entraînement mais ma dem ba moom mu may imposé da nga war a ñëw fii te man ma gis ne dama war a ñëw fii bu yàgg ak man man li may bëre yëpp ak li may def yëpp man du ma jàng dafa nekk sama deret rek ma ko yàgg pratiquer mais pourquoi pas ma dem jëli ko pourquoi pas ma dellu fi ma dëkk pourquoi pas ma ñëwaat nekk leader dëkk bi pour jaay dëkk bi pour màggal dëkk bi pour dëkk bi jóge fii dem feneen waaw man loolu moo ma gën a yokk ma ñëw ma ñëw nag rëccu ma ci benn yoon. ma waaw lii mooy sama ñëwaat si biir dëkk la Petit Mbao bëreeg yow foofu. li ma la wax xanaa doy dama la ne parcelle ñaata unité la nga ne ma 26. man la un laay tàmbalee maa moom ñu dugg oto. arrêt bu ñu jot wàcc mu duma ko gaaw. bu doon bëgg dem doon paquet biscuit bu doon paquet biscuit bu yëy benn. yëpp nga yëy lépp laa yëy. xanaa loolu producteur bi lan moo lay doy. waaw Papa nee ko moom su fekkee ne dañ ko influencé wala dañ ko pompé air si diggante boobu mu wax ma Papa jàkkaaroo naa man vingt fois xool sax du ma ko def waaw. fay naa la. Euh, sa préparation ñu doon xaar Gambie ñu doon xaar États-Unis nga ñëw Dionewar say digg boobu ñu bëri ñu ne Siteu combat bi ci mystique la ko teg. Euh, par rapport ak Papa Sow rapide nga nekk xale war a prouvé ndax Siteu gars yi nee nañ ndam bi bu ñuy xool ci wàllu xale nee nañ yaa mën a soxla. donc mhm. Papa Sow combat bi lan la la jaral fu la combat bi mën waa jànk wax la ko sànq nee la ci xolal dafa ci réew ma ci dama ko fonk trop waaw beneen bi mooy jongwaar Gambie Amérique lépp lu baax la mais yàlla dafa def ren combat bi fii laa ko préparé yee ma nekk samay benn bokk nag waaw ma leen di wax ne man waxuma la ni ne man dongu dongu dongu dongu ñu ngeema dama lay wax ne ku taxaw sama kanam dama lay wax ca waar dong ñu ngeemu ma kese kese ku taxaw sama kanam ay jëlee la foofu waaw. lamb ak mystique ñoo ànd mais ñiy wax ne que lamb ji si mystique nga ko teg yow laaj naa la ko ak mystique ak dóor ak bëri ñoo ànd dégg nga ma man bu ma am jël yóbbaale ma. baax a baax. di rafetlu jotaay bi si te maa ngi lay la. si dañu gis sa combat ak poisson yi passé nga jëloon benn góor am ni nga mel macha allah ku la xool bu soo ko xam ne tey si dafa ñëw ci bëri. combat bi des vingt jours si te ku xaw wàññeeku. lan moo waral loolu da nga ñëw taxaw tamp njaaga xeex sa waay wala da ngay ñëw pour mboq ak moom. non non man nu ma neex laa tool yére moo a jàpp rek. bu hmm. eh, ma bu ma sumbee ko nga xam ne góor dëkk na nii dégg waxal papa dina fekk dina dinaa koy dina état bu ne bu ne nder. waaw. loo fas yéene bëri xeex wala da ngay ñëw. lu mu laaj bëre bu gaawul xeex bu gaawul loolu kay lépp ngay dig. mais si di nga toog say biir mbokk gars yi di la posé question lu mel ne tey da nga bëgg lu neex waa John Waar moo waral nga toog wax nii. yow da ngay laajte wala da nga xam. non dama bëgg a xam. waaw man damaa ñeme. xam nga ko voilà. da keneen ñëw. Siteu maa ngi lay siyaar di nuyu képp fi nekk rek di nuyu suñu papa yi ñu fi nekk ñëpp Siteu benn bu arbitre si tànk lay jëm tànk lay cherché dem ci wàllu entraînement ñu ngi gis rapidité ak euh, entraînement bi ci nekk xam na ni ñu bëri ñu ne bu arbitre sifflé sa biir lay jëm bu fa la la fekk ak loo préparé ak li nga xam ne mooy Papa Sow bu ñëwee si tànk ndax expert naa ko yëpp ñu ne sa tànk yi la jëm mos ngaa mos ngaa bëgg fondement. waaw bu ñëwee day bëgg fondement delluwaat. da koy bëgg delluwaat duma ko may dara. tànk yooyu muy ñëw maa ko gën a xam foofu. mais ne moom ki jéeku ñëw. waaw. ubbil nga ko nga xam ne mënoo bëri mënoo xeex. waaw njool bi ngay bëri. waaw. mais démb démb naka nga gisee euh, roi de arènes nekk seen ginnaaw muy préparé Papa muy muy préparé Papa Sow di ko yokk doole pour le 6 loolu bi nga ko gisee lu mu def ci yow. waaw loolu lu rafet la lu baax la waaw te làmb affaire koñ la làmb affaire koñ la affaire gox la ñoom mi ñu def noonu dafa rafet mais dama la ne ñoo ñëpp dañ ñëw si digg yow leer na. waaw man de daa am lu ma lu ma lu ma lu ma la bëgg na relance waat rek. par rapport ak démb laaj naa ko mu ni mu loo ci combat bi. Mm-hmm. mu ne moom combat bi ñu nekkee sax di xalaat naan jël ak bañ a jël dana papa jël ko parce que da ngeen di liggéey. Ah. moom loolu la jàpp. donte yow frère am nga nitam nga parce que nee na bu dul bërum parcelle moom yow lay faral déclaration Modou Lo boobu noo ko gisee. waaw rafet nag ngeen bëgg koo dugal te mënoo leen koo dugal. <laughs> waaw loolu dong la parce que Modou bëriwul benn. Modou xeexul nit a mooy bëre nit bokkul gooñ te nit nañu waxante dëgg dëkkandoor mooy sa mbokk gën a jege gën a yaay Modou loolu mu def dafa rafet Modou bu faralul Papa Sow kon àdduna xanaa kon ka la war faral xanaa si dëkk waaw nee na bu dul parcelle de waaw loolu rafet na mais dama la ne combat bi sama combat la man ak Papa Sow yéen ñaar sël moom du Mor Lo du ma Demba du ma ni ko nu mu amee Morlo. man man laa amee Adama ah. Gueye. loolu laa ah. amee et cetera keneen ak keneen ak keneen. Mm-hmm. waaw c'est que Modou dafa nekk leader. yéen ni mu bëgg koo jiital si benn communication nañ bàyyi loolu. papa man ak moom ñooy bëri. nit ñaa lay waaw te papa nga taxaw rek mag la am na yoo xam ne bu ko jaral. mais mais leneen lu ma si gis mooy loolu tamit sa diggante yax yi jóg yëg am na ñu koy tudd ci combat bi depuis combat bu njëkk bu yàqu ba woon sax. amoon nañ information kan dafa am lu mu la jox ci ngemb ak ay bagages ak loolu loo ci mën a leer sa diggante ak Yaxya waaw xam nga Yékini nag sama nijaay la waaw mais loolu man damay sama nijaay bi laay fexe mu wax si tey ndax mu leer seen nopp mbiru Yékini boobu kii moom ak sama yaay ñoo bokk ndey baay kii moom may jàngal bëri moom naa la àdduna rek moo leen tàggale ni njaboot waaw mu ngi nii ci kii kii laa doon wax ne ay champion yu bari daan la waaw te kii boo ko laajee dina wax dara. ci sa diggante ak Yaxya. waaw waxal laaj ko ko. aja ab tonton Abdourahmane diggante si daag Yaxya. salaamaaleykum wa rahmatullah. mu ngi sant yàlla di gërëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw eh, yëg ni ñu koy bu baax. jaar na fii di entraîné ñuy ànd dem si làmb yi ñëw kon nijaayu si la mooy buur bu làmb ji Yaxya mooy buur bu ba tey jii. ba tey jii mooy li mu def li mu def kenn defu ko fi. lamb war na am ba jeex te duñ turam war am. moo fi def kenn defu si tamit. jàngul bëri